yéenekaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf ponkal yi ci géopolitique bi ak seen jël takkarnaase yi ca conseil constitutionnel l'observateur xëy na ci defub taxaw seetlu ubbil yéenekaay bi commission bi càmbar dossier parrainage yu candidat yi contrôlé ne démb lu mat ñaar fukki dossier ñaar ca ñoom ñoo ca jàll am na yeneen juróom-benn yu war a dem defaru juwaat ngir jaaraat ci kanamu commission ba am na lu toll ci fukki candidat ak ñaar yoo xam ne l'observateur ne nañu commission contrôle parrainage BIPSI professeur Alassane Daw ci l'observateur li jur li xew tey mooy renouvellement gu xóot gi am ci classe politique bi moo tax ba ñuy jàppe ay kàngam ak i kàng ci politique bi seeni mbir doxul nañu ko doon séento ñooñee ñu tuddee ay ténor ci langue politique gi Walf Quotidien mi ngi ñu wax ne lii bu yeggee ca ñeg ba du baax ci ñoom li bon dëgg ci candidat yi ak seeni parrainage enquête dina kay nee nañu mooy doublon yi ndax bari nay ndaanaan yu daanoogum juróom-benn ténor yu war a delluwaat ca kanamu commission ba muy alaaji Malick Gakou di Aly Ngouille Ndiaye Mouhamed Boun Abdallah Dionne Souleymane Ndéné Ndiaye Mamadou Lamine Diallo ak Serigne Gueye Diop Diop Decroix El Hadji Ibrahima Sall Adama Faye Babacar Diop Thione Niang ak ñeneen journal bi nee nañu ñoom jotuñoo jàll ñu jàll ci journal bés bi le jour mi xëy jàll ci candidat yi jàll ci parrainage bi muy Habib Sy journal bi mi ngi ñuy ne parrainage su député la yóbbu fukki député ak ñett yu noon def ko coordonnateur national pôle parrainage bu Benno Bokk Yaakaar xëy na di defal wàllu témoigner le point ci parrainage bu Benno Bokk Yaakaar yi ko président Macky Sall dénkoon ma nga fay wax ne bu ñuy xool ci réalisation ak ci ay vision Macky Sall mooy le meilleur ci Afrique ba Afrique daj mu ne bu fi jugee li ñëpp di jàpp ci moom dana bokk ci liggéeykat bu amul sago ci askanam un bâtisseur waaye it président bi gën a mag ci continent bi Amadou Ba mi mu tànn moom Macky Sall tegal Bokk Yaakaar ne seen candidat Abdoulaye Diagne nee na tànneef la bu jaadu guy fësal yéene continuité Bokk Yaakaar ñu fippu journal Tribune moo ko bind ñi ñuy woy les forces vives de Matam tey cadre yu Benno Bokk Yaakaar nekk ci ñoo doon conférence de presse démb Tribune nañu fa la waxee ne bëggatuñu kii di Farba Ngom di wéy di doon coordonnateur départemental bu Benno Bokk Yaakaar yamuñu ci ndax sàkk nañu ci président Macky Sall mu woo Farba ci ruq wax ak moom yamale ko tegaat ko place am fexeet ba discipline dellu siwaat ci biir coalition bi ca Matam tax ñu génn Tribune nee nañu mooy agressé gi ñu fi agressé woon maire bu Bokki la si nekay xëy ci delis ak ñun ba dañu wax ne tey la cour suprême di lijjanti pourvoi bi amoon ci coowal Prodac li ak tuumay détournement bu 29 bi Ousmane Sonko doon tuumal Mame Mbaye yoon atte woon ko daanoon Ousmane Sonko juróom benn weeri kaso yu mu dul tëdd six mois avec sursis alamaanoon ko ñaari téeméeri millions yu mu waroon a jox Mame Mbaye mbir ma mujjee ci pourvoi en tey ci alxames ji la ne nañu équipement médical bu toll ci 71 milliards l'observateur ne nañu cour suprême dafa rejeté recours ba débouté ñu fa yóbboon recours ba ne leen dox leen foofu Carrefour médical moo àndoon ak i fournisseur médical yu ci mel ne Dimente technologie service et Sodemed yóbbu woon ab recours ca cour suprême doon ci tuumal ministère de la santé ne dafa jox ACD Afrique Conception Distribution marché bu toll ci milliards ngir mu jënd 100 ambulances médicalisées suprême nee na leen gisu ci lenn luy wane ne marché bi marché bi gré-gré la libération yu ci xëta njëkk cour suprême validé na marché bi ndax nee gisu ca daray gré à gré ñu roññu roññu ñun delluwaat ci l'observateur wàllu yoon mu di justice ba tey waaye ci weneen anam ñi ñuy wooye ay interprète de justice mu di ñi nga xam ne bu ñu waree àtte nit nit ki déggul li justice di làkk ba justice dégguñu li nit ki di làkk waajooje mooy taxaw di nañu koy dundeek lañ ciy dund l'observateur xëy na di ko waxtaane am na benn interprète de justice bu wax ci di ko ci mbedd